alors euh, fi may jeexale ak yow mooy gis nañ ni nga def euh, benn featuring bu nice dëgg yàlla ak Titi mu nekk lu rafet déjà seen collaboration boobu ci lan la Titi nag moom oh c'est ma chérie Titi moom. sama chérie la. taay moom laa jël. <laughs> moom nga diw bëri. Titi moom laa jël <laughs> dégg fu ma naan ma yow laa nopp. yow laay séen euh, fii la ëppee donc kooku benn nit la ci man ndeysaan Titi euh, elle est extraordinaire yaay Fanta ak Mohamed suma xarit suma jigéen ku baax ku diiñ ku am fulla kon du way bi moo leen boole yéen ñaar yàgg euh, ah Titi nag ci woy laa ko xamee mhm. ndax bi ma koy xam mu nekk ci woy boobu xale la mhm. bi koy xam mu nekk ci way boobu moom it xëy na tollu woon nii donc ci woy laa ko xamee. yow mhm. mi ci woy nga ko mhm. te Sénégalais it euh, ñi ko gis télé bi. ci way lañ ko xamee effectivement waaye sama diggante ak moom yàlla daf ñu boole. macha allah xam nga ci moom nekkoon na dëkkoon na parcelle. Mhm. Euh, Pendo doon frekante seen biir kër. xëy na boobu man tàmbali ma woon ay way et tout ma dem nag nekk xëy na ku bëgg estilu titi mu nekk di woy may euh, xool ay way mu nekk ñu ko bu ko bëgg trop. mën way yàlla dogal muy def premier am anniversaire bi mu defoon euh, grand théâtre mhm. ma woon fa way dem ma pare mu woo ma téléphone ñi déggante séq teraanga nag déggante ma moom ba lu mu xewle maa nga ca lu ma xewle moo si jiitu macha allah donc nag mu nekk nit nag bu fidèle ci nitam mën nitam te xam nga bariwul fréquentation te demul fenn mu ngi këram. surtout yaayam mu ngi këram surtout ay doom mu ngi këram si njaboot gi donc bu liggéey jotee mu dem liggéey bu ñibbis jotee mu dem ñibbis toog. macha allah am personnalité nag yamale tànkam foo xamante ni vraiment kenn du ko dégg fenn fu dul ci liggéeyam ak yooyu xama te nit aussi bu amee nu mel da ngay mel ak ci moom moom ci doonu quoi. Mhm. en tout cas suma nit la suma jigéen la te amul morom.